fii nga koy amee ci xalaas. <laughs> Ah, mais man noonu la noonu lay demee. loolu loolu ngay wax de source. sûr ah. jeex na loolu la. démb ci 17h. Mhm. police dafa demoon kër Kour Kanké yóbbul ko convocation. c'est pas pour l'arrêter. Mhm. mais pour xamal ko ni ko lii ngi nga bëgg a def trouble à l'ordre public la du mën a am kilifa yi.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 bul caawale ñaar yi. cest à man su ma gisee nit ñi di ko wax di ci topp waxuma la xar géej mais moom buntu néegam bu tojoo sax mënu ko tijji. mais yéen naka ngeen gisee communication bi ñu ci def ci réseaux sociaux yi ak ni ñu ko. communiqué ni ñi ko doon invité di ko teg ci seen plateau yi ñoo yab Sénégalais. déedéet déedéet non non non non ñoo yab Sénégalais xam nga laa foog xam nga laa foog. te dafa baax nga vulgariser lu mel nii dafa baax nga nga nga nga pousse ko ba ci mur bi. Mhm. ëllëg keneen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 Euh, xale bu jigéen bi gagné concours général bi démb. Mhm, su ma doon laaj turam duñ ko wax. Mhm. kanti xale bu jigéen bi gagné concours général bi démb. concours général bi ñuy def. meilleur élève yi waaw waaw su ma doon laaj tur bi ñi ma ci mhm. tontu. jërëjëf fii doo génn fii kay. waa jeex na. doo génn fii kay. waa ji soloon yére jigéen yi doon composé gelam. waaw